salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi safoo Elvision Média waaye tamit nag chers abonnés yi nga xam ne ñoo safoo Elvision Média sa su ne dañ leen di wax ne Elvision Média dans une autre dimension boo gisee fii ñu taxaw nag ah dañoo taxaw tey rek fi dëkk neexee fi nga xamante ni eh yow mi may seetaan bëgg nga fee dëkk muy banlieue bi banlieue bi fan précisément ñu ngi fii Géejawaay Géejawaay Sam Géejawaay fii mi waaye Géejawaay notaire fekk si fi nag koo xamante ni ndaanaan la kenn dootu ko présenté fii nii ci musique gu Sénégal waaye rawatina nag ci feccu Sénégal muy boogaa boo nee Boga rek xel yëpp dem ci ni mbapat na fecc na sa xel dem ci Ndeye Gueye sa xel dem ci doomu banlieue bi yëpp sa xel dem ci fecckat yu mag yi dem ci woykat yu mag yi tey nag boogaa dafa woote fii spécial Tànn Béer ñu ni ko lan ngay feete mu ni sama 10 ans de carrière sa 10 ans de carrière nu muy demee mu ni dama ciy sargal sama yaay sama xarit ki nga xam ne moom a tette ba dara doonulee dara moom laa xam moom laa miin moom la ma ñëpp xamee muy kan muy Bidjo alliance générale fecckat yi muy Ndeye Gueye dama koy daal dékk sama mikoor a rek fa yéene ànd ak moom ak ay nitam ñu xool programme am lan lay tëddee waaye avant loolu dama naan ko boogaa xarit sama nuy naa waa awale ma ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi vraiment dama kontaan tey dama kontaan dama kontaan trop trop trop trop. sama xol sedd nag ndax xam lu tax sama xol sedd. dama gestu xewle gis say mbokk du bëri jikko du bari xaalis rafet jikko la. ma gestu gis ku ci mel ni Fatou Wore. ndaanaan la Kaja Diop. ndaanaan la Bayla ndaanaan la. di sargal suñu yaay. ndéegee ñun ñi ñëpp ñoo koy sargal tey gazelle yi. muy nag ku baax koo xamante ni tette nañu ànd ak ñun bu rafet awa yàquloo ci dara yow Gueye Ndioro dëgg neexul alaaji liu liu Gueye la ñuy woowee sa baay Alain la ñuy woowee sa baay Franc Gueye la ñuy woowee sa baay dëgg neexul nag ngeen ñëw fekk ma fii nga xamante ni sama chef aw ma lu nga ak ñu couvrir ma nag dimbali ma soutenir ma jàppale ma depuis bis ba vraiment bàyyiwuñ ma ma wéet benn benn benn benn yoon mhm. li war lépp awalin def nga ko mhm. yal na sa jàmm yàgg li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defal Elvision mhm. non bu ci kanamee ngeen xam ne lépp dëgg la dëgg neexul comme ni mu ko waxee rek El Vision Média boobu ba tey ca ndorteel ba ñu ànd ak Boga ànd ak Adama ñaam mi nga xam ne mooy manager am fas yéene ko gunge tey ci 10 ans de carrière am waaye nag duma ma puus dem ci géew bi dama fee fekk ay ndaanaan ñoo xamante ni jamono ji ci fecc kenn dootu leen présenté muy sama mag Fadou ware ñoom Kadja ñu ànd ak seen góor bay dama koy wax rek saali avant tout nga jëlal ma seen sañse ma dékk ko rek benn une minute mu am lu ma wax ci Boga ñu daal di dem léegi géew ba ndax xale ya pare nañu seen i taxaw nii mënuma fecc waaye sama tànk yaa ngi kat kate Fatou nuy naa la. fay naa la awa suñu rakk suñu xarit. borom Elvision Média. télé bi yëngal jamono xam nga seenu internet moom temps yi moo yëngal jamono. boo maytul ñëpp dinañ dem ci internet bi parce que lu la rëcci rek da nga koy xaar ci Elvision Média fa nga koy amee live and direct ci lii. waa boogaa nag maak moom crayon la ba may këpp dafa yàgg te li duuf ci nag bi xajul ci cin li ndax suñu programme la dama koy ñaanal yàgg ak wér muy sargal aussi suñu yaay bu léeg-léeg olom na ko gërëme coy ñun lu ñu am ci aar tey nañ ko sante Ndeye Gueye ndax moo ñu njëkk a dugal ci ay géew miinal ñu ay géew miinal ñu nit ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi kon li ñu war tey mooy buñ koy sargal surtout boogaa ki nga xamante ne sama frère la ñoo bokk ndey ak baay fameem ak sama famille benn lañu. dañuy takku taxaw def li ñu mën ak li ñu mënul ndax boogaa jar na lu ko ëpp ku xewle nii lay defee ak yow day bàyyi léppam ñëw nekk ak yow maa ngi koy ñaanal li mu bëgg moom moo ko xam yàlla nag ko yàlla defal ci darajey njool makka darajey sëriñ fàllu sama xarit bi loolu rek laa koy ñaanal ndax nit ku baax la ku modeste ku xam àdduna te àdduna loolu rek moo fi nekk li ci des nag bu ñu yeggee ca géew ba di nga xam lan la. boo ma ko waxee ma gëm ko ndax moom affaire yi dafa dee ci yaram bi kajaa nuyu naa la. waa Marie aw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay yu bëri di leen bëggee yéen waa El Vision TV. Mhm. tey moom wax amul dara xewul. Mhm. ndax dëgg neexul buñ nee sargal ndéygee sunu yaay. Mhm. ñun ñii xam nga ne lii rek dafa neex. ndax ñun ñii ñëpp gazel lañ jógee. ñun ñii ñëpp gazel la. tey boogaa su ne dafay sargal suñu yaay dañ ci am fierté dëgg neexul dañoo ñëw dañoo feebar sax nag waaye dañuy sànneeku def nii rek waa ranger seize waa recevoir suñuy gan waa man sa rak maalam du dafa feebar jëlal ma lim sol dégg nga mag sama nuy naa la waaw ziar naa la ñu ngi lay bëggee baax a baax ni nga def baax waaw merci waa di jàppale sama xarit sama frère mm-hmm. muy boogaa mm-hmm. ku xam boogaa xam bay laa mm-hmm. muy sama nit mu nekk ñàkk ñaan yaayam maari mbaw bëgguma seen famille bëgg ma dem ba ràññima ma seen biiri famille du dara amee bu ñu ma gis lañ ko na boogaa ana bay laa kon kii bu xewlee dama ci war a takk rip ndax dafa am lu ñu boole muy gazelle ku ne xam nga ndey gay def na lu na ci aar te moo ñu tett ñun ñii Fatou Wéré mi boogaa Kadja ak ñeneen ak ñeneen ñoo nekk noonu benn gazelle waaw kon xam nga ne lii kon waa xale gazelle munaas ñëpp xale yaa ngi ñëw kon lii dañu ne lii démb la te ku fàtte démb ku ne sa démb jagul ci ñun démb dafa jag moo tax ñu fàttali ko tey waaye ba ci kanamee ñu xam na lépp dëgg la ndax Baara dina génn wu Jar Yangaam te Baara Mbaye yu démb laa la wax de wax ma la Baara Mbaye yu tey de Baara Mbaye yu démb. waaw moo tax tey na tey tey lu waaye doon doon wër dina feeñ ci géew bi tey ndax bay laa baa ngi bay laa ngi nii xale xësala pëndal baa ngi nii. Saliou jël ma fii exclusivité lay doon ci Elvision Média kat yee aaye képp koo xamante ni ñëwoo teewoo jël place rek. di nga am problème ndax fat Waré fum né nee bëreet kajaani bëreet ay ñom Maguette sek ñom khadi Bambara sama chéri ñepp ni bëreet daal di jog fofu day wacc man damay summi samay daal tay damay jang fecc légui légui lay doon sur ci biir loolu nag tey Bouba bi nga Euh, def li nga xamante ni mooy métier art culture di ci euh, nekk ci domaine bi nga xamante ni moom mooy danse mu àndoon nag ki nga xamante ni moom mooy la diva Ndeye Gueye depuis ans ñu ànd di fecc di mbapat di dugg di jub di génn ba tey ji nga li ni moom mooy 10 ans de carrière mu ni da koy fête mu koy fête nag mu ni du dem Grand Théâtre du dem Sorano damay ñëw fi nga xamante ni moom mooy sama commune fi ma dëkk juddoo fi yaroo fi muy Njaareem Limaamu Laay ma def fi li nga xamante ni mooy célébration 10 ans de carrière yi ci biir loolu nag mu ni tànn beer laay organisé woo samay yaay woo samay jigéen woo aussi samay xarit yi nga xamante ne ñoom laa màggandool ci biir tànn beer bi nag mu ni damay sargal ñaari autorités yi nga xamante ni wala personnalité publique wala ay doomu géejawaay yi nga xamante ni def nañ dara géejawaay ñu ni un mu ni ndéegay laay sargal ndéegay la diva ndéegay laa gazelle laay sargal tey ci bis bi ñu ni deux mu ni dama koy tuddee ki nga xamante ni mooy honorable maire muy ki nga xamante ni mooy monsieur Baby Seye di maire de la commune de Ndiarème laay mu ni dinaa ci ànd ak ki nga xamante ni mooy mooy Ndeye Marie la présidente euh, des Amazones de Baby ici présente ñu ni dinaa ci ànd ak ki nga xamante ni mu artiste la muy Thiaba dinaa ci ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Marie ak ki nga xamante ni mooy maman maman Marie Mbow ci biir loolu nag ñu war a dëlmal programme bi ci première partie bi dinañ def comme ni ñu ngeen ko gisee ànd ci ak artistes yi nga xamante ne dañuy playback ku ci mel ni xaarim temps dina fi jaar ku ci mel ni mburu ma jaaga dina fi jaar akasa aussi dina fi jaar ci biir deuxième partie bi dinañ bàyyi boogaa ak boo compagnie ñu def seen prestation mais nag ku ñemee dañ laa dee te feccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca web ya ci biir loolu nag ànd nañ ci ak ay marraines yu am importance ku ci mel ni marraines yi ñu ngi ni toog dinaa ci ñëw waaye dama bëgg projet wu directement ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy partenaires yi. El Vision Média tey ñoom ñoo yor couverture médiatique bi ñoom ñoo def spot publicitaire bi nga xamante ni moom moo tàmbali suñu ka wàllu communication ñu àndoon ci ak suñuy jigéen ku ci mel ni Ndiol Faye ku ci mel ni bët yi Jaara Njaay ak Munaas ñu jàpp ci li nga xamante ni moom mooy spot boobu noonu.

ci commune am la ñu nekk nga nuyu suñu yaay leen ñu su ko defee ñu projet wu directement ci li nga xamante ne moom mooy 10 ans de carrière Boga mu ànd ci ak Khouri Sarr ànd ci ak mairie Ndiarème Limamoulaye laay ci thème bi nga xamante ne danaan culture au service de l'émergence defe naa ne Boga hors sujet. gaaw la cat Adama wax nga wax bu am solo sànq dama ne feccum liir bu neexee nday jaay tey ca mag ya waaye Mari Mbaw kenn du yow barke Nabi Moustapha jaa Serigne Babacar jii toog kenn moom Serigne Babacar rek la gëm maari Mbaw ngay ku baax di gore maari yaaw la tëdd la ma taas woon ni la fariñ ba dugg ca biir pour bi ba dégg mburu maari loolu nga daj ci biir kër maari maari Mbaw ku la woo bu ñaawul bi neewoon naa la sànq bu banlieue bi wootee day neex te day xumb te tey doomu banlieue bi moo wootee muy boogaa di fecckat kenn doot ko naatam le muy sargal nday géey tey géejawaay fii notaire waa marché saam waa golf waa fij mi kenn desul ñëpp a ñëw tey wuy si boogaa ay yaayam nekk fi suñu mama Jaba Cees di artiste nii toog ñëpp ñëw wuy si ko ñu toog ak nag koo xam ni yaay la ci moom moom tamit kenn doot ko présenté mu yor association bu mag sopp na bi mama nañ la waa maa ngi leen di fay bu baax. noo tudd. man Khady Gaye laa tudd. Khady moo waral sa teewaay ci bésu boogaa bi. Ah, xanaa jur boogaa rek nag boogaa di suñu doom ah, ñu ñëw ci ñaari tànk ñëw suñu tànk biñ ko juree ak tànkam digganteem ak Mass Bassel ndax ku xam boogaa rek xam nga Mass Bassel tey Mass nekku fi waaye xelam ak xolam yëpp a ngi fi ndax Mass dafa ñëw boogaa bëgg ko boogaa mag ko lool nag te bëgg ko. te olof ñaane na bëgg boo gis di koy fay maas nag ñu taxawal ko tànkam bu baax a baax taxaw suñu digganteeg boogaa ndax boogaa xale bu baax la xale bu am yar la xale bu am teggin la xam ñun ñi ay yaayam ah ñu fonk ko lool nag mu fonk ñu moo tax tey suñu toogaay bi boogaa moo ko waral Saliou comme ni mala ko waxe won rek ndax olof Ndiaye neena peccum lir bu neexee nday gaa japp ca mbag ya te nga woote tay lu reey li sa yaay ñew tok and ci ak yaw lolu yombul ba tax na ki ma ni mom moy yaay yaayu boga mi nga xam mo waral coow li tey dama koy dékk micro bi rek mu sanni ay baat ci ki nga xamanteni moy mooy doomam boogaa moo woote fii tey yaay boy nuy naa la fay naa la sama doom tour bi mari Mbaw tuddu ngay yaay ci boga mu nek fecc kat bo ne nek ci art doom bu góor bu nekk ci aar yomb lu nekk ngay dégg boobu ba tey nga koy tette mu egg si fii tey nekk ci ay loxo Ndeye Gueye ba mu ni day féete 10 ans de tey lan nga yëg ak lan nga koy dolli ak nan nga gisee bësam bi. waaw kan ba ma sante yàlla ak yonent bi di julli ci sama sama monsieur Ndao sallallahu alayhi wa sallam may sant sama ñaari waajur fa tabaarikalla macha allah di sant nag sama njaboot bokk ak samay dëkk kii ma toogal di bàjjen Bouga ma papa ma bokk ndey ak baay kii toog ci sama ndeyjoor sama rakk sama jabar la samay xarit lañ fa tabaarikalla àdduna moo wuy si Bouga sama taaw fa tabaarikalla bëgg ma yërëm ma doon artiste ba mu doonee xale la bëgg doon artiste lu def naa ko lu bu ma ko mu bàyyi mu daw daa bëgg fecc man yaayam fecc kat laa woon fa tabaari kàlla ma. Ah, nga doon fecc. man ah, dama daan fecc man damay fecc boobu fecc bariwul fa tabaari kàlla macha allah ma am ci lu ne neexul doo ci am dara boobu da nga koo waaye boo ko gëmee di ci am sa doon taaw bu baax taaw bu ma taaw bu ma loo wax mu ne sama yaay. daaw a xol bi rafet macha allah daanañu ne nit ki xol rek la yàlla di te bisam bii wane na ko nit mën ngaa luye chaise ak bâche waaye mënoo luye ay doomu aadama bis ko tàmbalee ba léegi fa tabaarikàlla kenn toogut kenn nelawut kenn lekkut kenn waaye aw ma xel ñaar ndax waajur ñaanalee doom day réussir te dafay réussir incha may ñaanal Ndeye Gueye lu ne ci boogaa Ndeye Gueye ko ci def moo yaayam moo ko tette moo ko jàppale moo ko teg ci yoon fa tabaarakalla macha allah ku fi rek sant naa la gërëm naa la sant waa Europe lu ko jàppale maas baasel li bu caam ko benn yoon fa tabaarakalla macha allah ma koy ñaanal yal na la la jàmm laal leeg jàmm yal na sedd guy ci barke Serigne Babacar si sama wasi déggal loolu Rabiyel waa ñoo ko déggandoo defe naa boo gaa war naa dal sa yaay bu la ñaanalee ñaan yi ñaanal e kon li lañ seedal ci géew bi de boogaa lu baax la ndax ne sa yaay nee taaw bu baax la te jàppale nga ko Saliou sama caméraman bu ñaawul danga may topp rek ñu continuer programme bi xool yeneen maret ndax daanu nant 我们。 comme leen ko waxee woon géejawaay nga wàccee nu ne ndax nee naa fecckat bu mag bi moo wote muy Boga ndaanaan boo xamante ni si moom it kenn dootu ko présenté nee naa leen fii ci fecc Sénégal muy sargal nag ki nga xamante ni mooy yaayam di xaritam ñëpp xam kook moom deux ans Bougane dix ans de carrière ak kan mu ne dix ak Ndeye Gueye alliance bi joo soxor kele chéri papa booy dina nuyu naa la Ndeye fay naa leen ci nekk maa ngi sant ba waa Sénégal ñu ne laa namm maa leen raw maa leen raw tey lan nga yëg Bougane dina sargal waa damaa kontaan trop ndax euh, Bougane nag sama xarit la sama rakk la sama doom la sama lépp la mu nekk nit ku ñàkki ñaan bëgg ma lool ma ànd ak sama sama rakk sama xarit Fatou Mbaye jaar ànd ak sama rak soxna Fat Bari sama njëkkee Ndey Kura ak sama jëkkër yi ñoom Petit Dieye ñoom Ibou Seen xale yëpp gunge ma papa mu ngi ñëw donc sama ak Sarata sama rak bu jigéen bale toog sama jabaru mag toog na maam kan suñ jabaru mag ndax ma ak yow ñu bokk benn papa donc ma kontaan lool vraiment sama xol dafa sedd ndax boogaa li muy def nii am na ñeneen ñu mu waroon ndax ñoo xamanteni tay tey lu ne ji naa ko lu ne def naa leen ko tay ñoñu ñom ñoñu la waron mais tay Boga moko def donc ça me fait plaisir vraiment. kon tay ben sensation la boo xamne lay léegi nako suñu waxtan ci Boga duñ gisoo ma gisoo ma léegi bi may fecc sama tànk gis nga sama tànk day metti fan yëpp dama damay damay liggéey mais sama tànk day metti mais boogaa il faut le ma ñëwal ko parce que sama rakk la sama xarit la boogaa dama koy yee heure bu nekk di ko attaayaloo sama kër di ko maa ko sañ wax lu nekk maa koy def lu nekk man aw ma xarit boogaa mooy sama xarit boogaa mooy sama complice mooy sama lépp donc euh, may ñaan bis bi chaque année yàlla nañ koy teewee waaw loolu daal laay wax waaw. xale yi nga formé fii bat parce que xale yi ku ci yëkkati micro bi rek benn baat ngay wax ndey gay moom a teete secret boobu nga def ci xale yi ba tey ñu ñeme la mooy ban secret bëgg naa nga wax ko téléspectateur yi lay seetaan. waaw maa ngi sant yàlla baax a baax ndax man du ma kenn du ma leen benn yaay fàll leen laa nii rek benn taalibe Serigne Touba xeebu ma ko nag may sant yàlla baax ndax yàlla mënoon na def tey ku ma ci dajal ñuy xiiroo ŋaayoo war a gaaruwaalante bi waaye yàlla dogal na ni ku ma ci gis samay tànk ngay sukk balaa ngay wax dara balaa ngay def dara sama tur ngay njëkk a tudd kon damay sant yàlla bu baax a baax a sama rakk ji nag seetaanu ma benn benn benn benn yoon barke sëñ Fallou waaw waaw. acca ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax lan ngay wax waa El Vision kontaan ci yéen liggéey bi nice na trop El Vision Média liggéey bi na nice na trop kontaan na jërëjëf je vous aime je vous Sénégal maa ngi leen gërëm di leen baalu ak di leen ñaan di leen wax ngeen ñaanal ma yàlla gudd fan ak wér may ma ci sama sëy bi njaboot gu barke ci barke Seydina Muhammad waaye Yadaaki TV ñooñu samay xarit lañ ñooñu lu ma xewle ñu ngi ci bi ma Cheikh Gueye di sargal keroog rafet ñoom ñi ngi fa woon kon waa Yadaaki TV ca kaw ca kanam dinaa leen may benn interview exclusivité di leen wax mouvement bi may waajal yéen laa koy jox waa Yadaaki TV Fatou nuyu naa la. fay naa la soxna si. ci loo nekk. maa ngi nii sant yàlla bu baax. xale yi nee nañ ci ginnaaw wax na da ngaa xew. <laughs> nañ bàyyi tooñ. ah nañ bàyyi tooñ. waaw euh, lan moo waral gunge bi nga gunge Ndeye Gueye ndax kenn doot la wax waxal sa digganteeg Ndeye Gueye. waa Ndeye Gueye dafa nekk sama mag nekk sama lépp ci man bu xewlee ñu koy sargal bu ma jàpp dama ko war a bàyyi ñëw gunge ko. Ah. looloo waral tey sama teewaay fii. waaw tey lan ngay dénk boogaa ndax yéen ñëpp yéen bokk milieu bi yéen a bokk audiovisuel bi. waa xanaa mu gën a góorgóorlu rek ndax milieu bi metti na da gumba taxlu rek waa jàpp too bàyyi waaw si lu baax waaw yàlla baax li nga sañse gis nga dama relax rek ñëw wuy si boo daal ah, looy wax waa El ak waa Yadaake TV waaw waa El maa ngi leen di gërëm di leen sant gis naa liggéey bi nice na trop kontaan naa trop waaw ah, kon neex na jël leen la nuance de domaine ak Fatou Mbaye rek dara du ñu toog ak beneen marraine muy Mame Wallo moom tamit ñëpp xam ko mu nekk ci banlieue bi bëgg banlieue bi artistes yi ku xewle woo ko mu ñëw wuy si la yaayu maman Habib mu ndaw Mame Wallo nuyu naa la. fay naa ci loo nekk. maa ngi sant yàlla bu baax. Mame li ma leen njëkk a wax baa xeesal nekkul sa sa xel. mukk ci àddina déedéet te du ma ko def. maa ngi nuyu ñëpp di la nuyu sama jarbaat bi nga xamante ne nu waxoon ni mu ko dëgg neexul. dëgg neexul eh, yow yaay magu ma abi. dëgg la waaw boogaa tey ma woote. sama góor sama xarit. maag moom nee naa dañoo bokk ndey ak baay. boogaa fu ma ne fekk na ma fa. boogaa bëgg na ma téye na ma. waxatuma daal ndeyge mi nga xamante ne ni mooy général ñëpp. mooy docteur ñëpp. ci biir kër gi ci activité mu def ko di ko sargal kon man damaa kontaan daal. bàkk Sëñ Tuubaa maa ngi ñaan lépp lu mu mën. mu def yal na ko Serigne Touba jàppale bu baax a baax a baax a baax kontaan naa lu bari. li mu dund ak yéen bari na parce que ku la xam xam la biir kër Habib xam laa ak Ndeye xam laa xale yi te xale yi fu ñu toll dañ lay gërëm maam waala maam waala maam waala lan ngay defal xale yi ba luñ jóg tuddee la ndax damay dégg Thiat Seck di la way dégg Sidi Diop di la way xale yi di la way maam waala lan ngay lan fan nga jaar xale yi. xanaa dara xanaa xale yi daal dañ ma bëgg su ma wàcce xale yi sax damay jooy Maguette Seck ñoom Nabou Leye Khady Bambara Bayla boga xalé yi yëpp ci man nabu lay bàkk serigne touba xalé yi ñëpp ci man lañ ndey gay tamit lépp moma parce que suma ma doon sëy ci fa xalé yi ëlbatikuwaat nek ak man bu leen gay téré woon da dun ñew kon man lépp ndey gay la koy wax damay sant xalé yi bu baax di sant gay ñom day xadi xalé yi ñoom ñëpp daal bàkk serigne touba maa ndax sama xale ñaaw neexul ku ban sama doom deug neexul man daal contane la def Moussa Ngom sama càmmiñ lii nga xamante ne nii dafa ne dafa ne lu ne ci man man xam lu ma jaaxal ci yow Mame Wallo yow fooy dem délégation bi nga àndal day garaaw xale yi ñëpp a sañse muy góor ak jigéen dégg nga ko de xaw ma daal lu mu demee tamit Saliou damaa bëgg nga ma koy jël ak kaw ak suuf daal li ma lay wax ne leen fecc fecckat yaa ngi nii toog barki Seydina Mohamed ñoom bi yëpp ay fecckat la te ñoom ñëpp maa leen ko lebal ah papa damaa bëgg nga taxaw ne cootu ndey ngay ndax ku ne xam na ni nag eh yéen damaa bëgg ngeen déglu ma jali bi nooy jali bu xees jali bu ñuul ak jali bu xees damaa bëgg ngeen déglu ma sama yaay sama xarit ndey ngay barki Seydina Mohamed il fallait que ma war a woote ko day fëri ndax xam nga lu tax dama nekk ak ay nit ñu bëgg ma trop yéene ma di ma tiitaroo di ma sago papa booy jine mii dama dugg gunaas ndax man ku ne xam ne ne fu jëm ji yendu ma yendu fa fu mu fanaan ma fanaan fa fu ko bëgg ma bëgg la fu ko bëgg bëgguma la léegi mii taxaw man ka moo ne baaba maa ko ku ko bëgg ma bëgg la ku ko bëggul bëgguma la mënu ko woon ah ndax amul lu ma doon téye eh aw ma téeméeri at waaye xam naa téeméeri nit aw ma téeméeri kër te dugg naa téeméeri kër daf maa yor biir këram quatre ans barki Seydina Mohamed bàyyiwuma ma xiir bàyyiwuma ma mar amuñu ma fa dëmb ndey fëri mu bëgg ma jàppale ma barki Seydina Mohamed ma jar ma tax ndéygay di xeex du xuloo mu ànd ak séeréer bii nga xamante ne nag da koo nopp ba jeex tàkk papa yaa gën ci man ma ñàkk sama ndey billaahi wallaahi daf may may ay yére may sol benn bu boutique jënd yére ba mu baax bu ma nee cëpp mu def ko ci mbuus nga am dafa riis daal moom moom papa ji ne mi taxaw moo ko def dama koy wax su ko def loolu du ma ko wax waaw kon daa nopp nday. nday la bëgg. léegi nag yàlla boole ma ak moom boole ma ak àdduna yëpp ndax képp ku teew tey rek boobar moo tax nga ñëw. waaw nday. barki Seydina Mouhamed day fëri dama kontaan sama xol dafa seen. merci muy gëna neex artiste yi di gëna ñëw mbëri di gëna ñëw ki ñu taxawal nak mom téwayam warna parce que jabaram la sargal muy papa boy jinné l' enfant chéri de la banlieue waye l' chéri sama chéri nobu mako nak nobu ma ndey gee la nopp nuy naa la fi la rawee siyaar la ñu wër wër ci lo nekk wa sant gu tedd gi baax ñu sant nga nopp ndey gee ndey la nopp kan nga nopp ndey gee la nopp <laughs> ci loo nekk yaay ci jàmm. waaw da ngay waajal combat. waaw maa ngi combat. yaa kan? man ak benn boobu dëkk Tëngéej. yaa ah, turam. ban nga am sa jabar mu di ko sargal. waaw rafetlu naa ko ndax boogaa moom borom baax la quoi. tamit diggante bi yàgg na diggante moom Ndeye Gueye te dara ñaaw si ñu koy ñaanal li bëgg moo xam borom defal ko ko ndax xam man si leen fekk ba dara ñaaw Boga champion la borom banga ngui koy ñaanal yalla defal ko jamm digënde mo ngi déggee jamm am si ba kenn ku nekk xam li nga yéne sa borom suñu borom def ko si daraaje sayyidina muhammad ñaari nit yu nekk audiovisuel yombul nak lepp lepp rek lepp lepp rek ci aar la ngay bëré sa jabar di fecc tay nga fekkook ay nitam tay mënon nga réagir nenen mais defo ko lan mo wara comportement bobu nga jël ay nitam accepter len wa mais ku bëgg laax do bañ soow ku bëgg laax do bañ soow quoi loolu mëna démé ndéygay ku mu bëgg ma bëgg ko ah ku mu bëgg ma bëgg ko ku ko ma yëg ko ku ko faale ma faale ko xam ndax moom borom baax la te xam nga jigéen la daal yàlla dimbali na ko xaw ma fekk ko ni mu war a mel di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm diggante moo boogaa lii rek moo ko war tamit quoi mu ñëw xam nga ñëw taxaw ko jàppale ko ndax xam nga raxam la xaritam la doomam la ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm mais moom bés bi nii rek a mel parce que ndéygay moom liggéey na ñu koy ñaanal jamm ak salam ci daraje sëñ Fallou waa Aïcha xalé yi def paré def jongoma def sanxé nee naa ay banlieue bi bo fi organiser dara bëgg xalé yi sotle la day ñëw sotle la ba mu neex béti nuy naa la awa fay naa la xé bo li nga sañse béti yaa ngi mel ni Clémentine bàyyi tooñ awa yaa digganteeg boogaa kenn du ko wax nak gisoon nañ la ci spot bi nga ñëw jappalé ci ko lan nga koy dénk wa dëgg la waa programme wax dëgg yàlla nitu nit ñi la quoi nit ku baax la nitu nit ñi la oyof na baax na yëg na nit yëg na doomu aadama ndax mën ngaa xew le nga luye ay seen luye ñëpp mais nit kee mënu a luye waa kay kon na nii rek la mën a demee bu wootee nit ñi wuy si ko dëgg ne loolu la. ñu ngi lay jaajëfal mais ba xam nga na ngaa bàyyi ma waay. Saliou jël ko kaw ak suuf dafa sañse. cuuna sama mag nuy naa la. waaw fay la. mbokkum nday Modou Gueye ci loo mu jóg jàpp ci. ku xew la ci banlieue bu mu ñëw di ànd ak Malick Gakou di liggéey lu rafet a rafet cuuna nuy naa la waaw fay naa la lu bare bare nga ñëw jàppale sa xarit sa jàmmiñ Boga a c'est vrai Boga moom sama xarit la waaw te sa nit ku baax la di ànd ak sama frère Modou Gueye bëgg ma yëg ma moo tax ma bàyyi lépp tey ma ñëw baa gis nga li nga sing gis nga de xeeb naa Fatou Gueye école ba léegi toujours simple <laughs> waa gis nga de. géwél la de waaye dafa simple def classe def jongam maa ko bëgg ba magale ko sam bopp boole moo ko dara ñu ngi lay jaajëfal. waaw merci beaucoup Awa. <laughs> waa beneen ci ndaanaan yi kenn doon ko présenté borom dikkoon Aziz Dabala nuy naa fay naa la. ci loo nekk. maa ngi nii rek. yaa ngi nii rek. xale yi noo ma wax ni Awa Alain ba ma ni leen ah ñu ne ma Aziz Dabala dafa xew Aziz Dabala da ngaa xew. non xew xewee si topp xew ma de. xew. da ngaa xew. non xew ma xew xewee ci topp ñaanu ma yàlla sax xew. naa nekk rek. naa neex si yow. da ngaa dégg lan wax Boga ndax kenn dootul wax sa diggante gu. waaw loolu àdduna xam na ci dara parce que Boga man samay bis day fanaan sama kër lañu sama appartement lay ñëw. trois jours dafay am trois jours barki Seydina Mohamed doon ku baax ku ñàkk ñaan bëgg Aziz Dabala kon bu ma ñëwee fekk mbooloo mel ne xam ne dañoo naar ba xoromam nga xam ne day wuy ji moom ku xelal wuy ji na la mu doon ku baax ñàkk ki ñaan ba du mu mën Aziz Dabala nag boo gaa sama kër rek la ñu di fanaan dafa am lu ñu wax ñu ne artistes yi bu ñu xewlee seen biir dañuy maye rek ba di nga jóg léegi dafa teg boo gaa lu baax baax soo mu ni ma ñëwee xanaa su ni ma ñëwee avant laa njëkk indi sama géer sama xarit Pape Medina mu jox ma xaas bëri ma di ko boo gaa c'est la vie yaa ma gën a xam waaw waa looy wax waa El Vision Média waa El Vision Média Vision Médias ci kanam am leen ay boobu temps yéen a duka rabani ne bala mai bin nema da mai fatar gude mu assalamu alaikum wa ke da war ndax ñi ma fekk ci géew bi sama élément nan sama xarit nan noo fecc kii di borom bëri ko noo fecc furuj faret masha Allah boogaa day sama mag di sama xarit yaayam doon ku baax ñu bëggoon ci groupe Ndeye Gueye xale fi ñu nii ko lu mën nak man nag taw bi dafa xawa taw sama taw bari bëriwul ca Saliou nee naa la ndaanaan yi ci biir ndaanaan yi tey artistes yee xewle ndaanaan yee xewle ki ma taxawal tamit kenn dootu ko présenté muy Nabou Leye borom dikkoon Nabou Leye macha allah di fecckat boo xam ne ndax nee nañ xale bu loxoom setee mën a bokk ak moom tamit mu jugee les gazelles de Dakar dëgg neexul Nabou nuy naa la. fay naa la maa ngi awa ci loo nekk. waaw salaamaaleykum waa Sénégal di nuyu samay xarit ak samay am di jàmm waaw tey nag dama teewal sama mag sama xarit mu yàgg ak ñun te musul ñaaw boogaa du mer lu ne lañ koy wax moo ñu mag dañ koy sax saaga du wax barke Serigne Touba te man Nabou Leye ku ma xam xam na man yaay Fall laa élément Serigne Saliou laa ama problème man ku ma bëgg ma bëgg la barke yonent bi ñi ma bañ sax dama leen a bëgg tey nag boogaa daf maa tuddee bisam moo tax ma jug def déplacement ak dérangement ñëw ba fii pour sargal ki si ko parce que dafa baax dafa ñàkk ki ñaan man ak moom depuis les gazelles de Ndeye Gueye suñu yaay jooju noonu ma koy saluer de passage mu nekk tamit artiste bu mag moom Ndeye Gueye nekk bu baax chéri papa boo jimee ñàkk ki ñaan yor nu nag yor bu rafet def si ñun ful la jom ak dignité barke yonent bi yor bu rafet moo tax tey lii am ndax da ngeen a nangu woon mu tettal leen ca ndorteel ga tey looloon dénk boogaa lan lay doon waaw mu jàpp tawoo bàyyi ndax aar bi dafa yaa aar bi affaire yi géej la rek ku nekk da ngay ñëw rek tànk kenn moomu ko na jàpp tawoo bàyyi mu bañ a changé ni mu mel mooy loolu daal moom moom zéro faute xam nga kan laay wax nga joxal ma ko sama robe sama chéri sama xarit Khady Bambara amul benn problème Khady Bambara ñëwal jël si robe bi yaa ma nga na xam mu joxal la ko xale amul problème <laughs> Aïcha ñu ngi lay jaajëfal Aïcha mu ngi noonu su ma nee Nabou Leye xam nga ni bu ma nee bu ma paree ci Nabou Leye xel yëpp day dem ci Maguette Seck xel yëpp dem ci Khady Bambara ndax ñoom ñëpp a doorandoo woon ca les gazelles mu Ndeye Gueye ñuy ànd ak Ndeye Gueye te Ndeye Gueye nee na ma sànq aw alee ma ne ko ah, mu ne ma dara ñaawul ci ànd bi Maguette Seck nag nekk ndaanaan nekk xale mën na fecc ci loolu kat yu mag yëpp nangul ko ko Maguette Seck nuy naa la aw maa lay fay maa lay fay li ma lay njëkk a wax baa li nga sañse xeebu ma xool pourtant damaa xool li gën a oyof ci Maguette Seck da ngaa da yow ah. koy wax da yow ah. ana Xadi Bambara sama xarit bi daa xaw am lu ko téye gën ci man sama xarit boobu ma nga gën ga tey lan nga yëg Ndeye di euh, boogaa di sargal seen yaay ki nga xam ni moo leen jàll téye woon ca baa ba léegi ba tey ngeen mën a beru ànd ak ñeneen ànd ak seen yëfi bopp ndax kuy liggéey ci da ngay ñaan am sa yëfi bopp tey lan ngay wax Boga ak lan ngay delloowee njukkal Ndeye Gueye. waa kontaan ci loolu parce que Boga buy sargal Ndeye Gueye tuddee ma ko loolu lu rëy la day sargal Ndeye gay tuddee ma ko mu nekk lu rëy ci man ñu nekkandoo woon ci Ndeye Gueye musul ñaatu dara dara dara ñaawul Boga ak gën ci ma nekk sama xarit sama mag sama càmmiñ barke Serigne Saliou bis bi tey dara du fi jeex. parce que xale yi takku nañu ba dëgg xale yaa ngi ñëw. man soo ma nee di nga maye ma gëm ko soo ma nee da ngay ma gëm ko mais da ngay fecc laa gën a soxla léegi ma ñëw wàcce fii. waaw lan ngay wax waa El Vision Média ma bëgg nga waxal ma ko ci caméra bi ni ko Zeyna borom yaay kan xaar ma maa ngi ñëw. Zeyna yow pour yow dara du xew yus du tëgg waal du woy jongo ma belli rek lay doon maa ngi ñëw ci émission yu kenn du dund yaay kan pour yow man ak yow Zeyna du yomb yaay kan dina wàcc ba zéro. Zeyna dégg nga